waaw ñoo ngi tax ak euh, Papa Sow Papa nuyu naa la. Mbaaru si point de presse bi gars histoire léegi de. Ah. fi la néew nuyu sa fan si rek. ah ok waaw. Papa nuyu naa la lu bare bare. Alaaji Iba maa ngi ñëpp a si jàmm di la jaajëfal ñoom Lamine ñëpp a ngi si jàmm ñoom <laughs> Mansour ñëpp a ngi si jàmm ñëpp a si jàmm. ñëpp a ngi jàmm. <laughs> mais à ngi naka Paa mi ngi si jàmm mi ngi si jàmm alhamdulilah. naka ah. alhamdulilah quoi. naka the moral ah santi yalla uh. selalu ada sport sa ah. ah, sport la la sport la pa sport la pa ah. mi ya. mi 10 minutes berewo amo sere gere hein 10 minutes motok berewo amo sere gere non non non non am am nit nak euh bo andek say mbok waaw ñepp leela defal li waaw leen loo leen loo def lu lu lu ci fekk da ngay tooñ. xëy na boo amee xelit ñu nga hmm. àndal ñett ñeent juróom bu ñu dajalee seen xel ñu li ëpp xel. bu la waxee defal lii. Hmm. defal leen li ñu bëgg. Hmm. waaw. naaw mucc benn rëgg rek ndax. moo si eh, amul ku si instant boobu dix minutes sa yaram laajul nga dem. waaw mais léeg-léeg sa yaram bu laajee nga dem sax boo waroo dem. waaw ndax ñoom xëy na Antoine dina la ne def la si ne la saa yi demal. c'est un combat le plus nul la. bu mu mos a def yaakaaruma ko yaakaaruma ko tam. yaakaaruma ko ndax bëri naa li ma war a bëri tactiquement li ñu bëggoon li ñu bëggoon fi ñu bëggoon egg egg nañ fa xëy na yàlla moo dogalu. foofu yàlla moo dogalu la ñuy wax quoi yàlla moo dogalu. léegi Papa Sow ancienne gloire comme ça. waaw sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin. ñu demee ba bëre ba am envie am am yaakaar dañuy bàyyi bëre sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah. non non maanaam bu demee ba toog fii xam ni ñaan bul bàyyi da ngay bàyyi bul bàyyi da ngay bàyyi. Ya. mais bu demee ba egg ci lu mel noonu. Ya. maa alhamdulilah rabbil alamin. sant yàlla bu demee ba bëree ba bàyyi bëree. ñu sant yàlla. kon bàyyi bi bàyyi bi c' est pas effectif. non c' est effectif moom. c' est effectif waaw c' est effectif moom. c' officiel. waaw c' est officiel moom loolu c' est officiel quoi. lan moo ko mën ah mais loolu léegi rek dina dinaa ko wax ci point de presse bi incha allah ko ci point de presse bi si kattan yàlla. mais nga daal. waaw bàyyi moom bàyyi moom bàyyi noonu moom. waaw. am nga ndono. ndono euh, ndono ci kër wala ci dëkk bi nga wax pour kër gi waaw non non amul ko fu kër gi amul kuy amatul mbër ay footballeur fa nekk ak leneen ak leneen am si ah, investissement non reconversion waaw reconversion euh, Sénégal moom xam nga liggéey fi moom yomb na moom waa dafa yaatu na lool la ci lu yoo xamante ne daal lépp loo xam ne lu baax la lu dagan la lu ñu lew la mm. waaw lu ñu suturloo moom dañ ci dugg moom mm. te mu lew ñu te mu nekk lu dagan mu lew nag te mm. waaw Papa j'ai le cœur lourd. waaw ah, noonu la sa noonu la àdduna ak sa carrière. <laughs> àdduna ak noonu de. àdduna noonu mais nag bàyyi bàyyi bëree bokk ak bàyyi làmb. léegi suñu ay rax dañ leen di gunge jàppale leen nag ñaan leen lañu def ñun ñu def ko ñettam loolu la ñaan yàlla te loolu la suñu mérite sax mm. nii kii su diw suñu booy la mm. moo dem dem na ba dégg roi des arènes dem na ba dégg nangam ba dégg nangam mm. ah loolu ñu dinañ dinañ am xol bu sedd guy nag ah merci mon frère ok on est ensemble <laughs> ok merci merci Iba